Merci, Président. Chers collègues, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre des Infrastructures, Monsieur le ministre chargé des chemins de fer, le DG du budget, le SG, M. Sagna, ma chère Soane et le directeur de cabinet Tcherno, le DG de la Juroute, son représentant, son SG, DG du CETUD, le DG Camara, mon grand frère Waljojo, et le DG Omar Gaye et notre cher PIF, DG de, du, du FERA, SG Ndao de la Jouroute, Ibrahim Sall, et toute la délégation qui vous accompagne, sans oublier l'honorable député, le directeur de Dakar Demdik. Merci, honorable ba pour le plaidoyer pour le département de Nioro. man li ma bëggoon wax rek mooy ñi fi taxaw yépp opposition pouvoir tey xam naa ne budget bi ñëpp koy voté képp ku fi taxaw rek defal ma laa dégg defal ma nag àndul nag ñu ne voté budget bi ñu bañ ko voté defal ma da ngeen di sant ci njekk le président Macky Sall lim fi def dama ne fii Sénégal 2012 ba léegi 6000 routes bitumées la am projet bi ñuy wax PSD au moins projet boobu am na 2800 kilomètres de route soo ko booleeg 3300 kilomètres yi fi nekkoon dina yegg presque 4000 donc indépendance ak léegi. ba ak 2012 six mille kilomètres de route donc président Macky Sall à douze ans presque def na fi loo xam ne nii dépassé na liñ fi defoon indépendance li li ci des nag deux mille deux mille vingt quatre ak deux mille vingt quatre incha allah su ko Amadou Ba mottalee ak PSD bi dinañ dépassé six mille kilomètres loolu nag ku bañ Sénégal dong naan ñii amul ambition beneen bi monsieur le ministre xam nañ ne PSD bi am na solo bu baax lu mat. soixante entreprises sénégalaises dinañ ci liggéey plus de cinquante mille emplois dina ko créer mais loolu ba léegi monsieur le ministre contenu locale bi dafa des ci milliards yi dugg yëpp ci secteur boobu loolu il faut nga xoolaat ko le contenu locale du tabax route yi rek ña liggéey mais suñu paree service bi après vente boobu dafa am solo les entreprises nationales man ci bokk bu baax beneen bi dama bëgg ñëw tuuti ci monsieur ministre yi Nioro wax naa la ko il faut nga jox ñu une date pour kay Kaymoor ngir yàlla dañ la ko ñaan rek wala nag soo amee problème Moustapha aussi nga wax ma ko chaque jour nga ne ma c'est bon c'est bon contrat yi signé nañ ko mais loolu laa bëgg nga jàppale ñu ci ak piste yi di la remercier mais nag ñu nit waa Nioro ak waa Casamance dañu bëgg autoroute comme ñun amuñu train autoroute bi jógee Kaolack jaar Nioro jaar pont bi président Macky Sall def nga amul fenn Afrique dem ba Ziguinchor loolu lañu bëgg boole leen ñu ci programme autoroute yi monsieur le ministre damay def mention spéciale à deux fonctionnaires muy le directeur général de l'AGEROUTE Ibrahima Ndiaye ñu ngi koy ñaanal ñun ngi koy féliciter ak le directeur SETUD parce que Sénégal nga nekk fi fonctionnaire politico ñu jox la direction dafa mbét waa pouvoir bee lay gën a sonal waxuma ak opposition donc ñaari fonctionnaires yooyu mention spéciale mais monsieur le ministre dama bëgg biir dakaar soo fi jógee am événement am stade wala wala wala wala centre Abdou Diouf nit ñi dañuy am problème autoroute bi péton bi ko tabaxee nañ am côté yoo xam ne na flexible ñu def ko su ñu mën a ubbi yeneen voies yi des fois sénégalais dañuy raté seeni i vol te seen yoon nekku ci match wala événement loolu nañ ci liggéey ba autoroute yi ñu def ci loolu beneen bi mooy ni situt commencé def a Sacré-Cœur nañ ko def ci mbeddu Dakar yëpp da ngay gis benn mbedd ñaari nit gaare ñaari côté yëpp mais loolu bokk ci civilisation ay camions yi soo demee ko Europe sax ko camion pour mu dugg ci ville bi il faut vingt deux heures jot nañu fexe ba camions yeeg gros porteurs yi di dugg à partir de vingt deux heures ci ville yu mag yi merci beaucoup merci cher collègue la parole est à notre collègue Daba Wagnane